Salondanis. veux vivre pour rester libre. Je veux m'envoler vers le ciel. Dans les et beaucoup d'autres leaders nous rejoindre pour gagner gagner élection à 68 le président est parti du plan de Yonou qu'il a abandonné Yonou yokkute lañ le plan Sénégal émergent plan Bobou.

moo leen man moo leen générosité moo leen ëpp jëf moo leen ëpp jàng kon bu ak ay bojo bojo dañoo war a taxaw dóor fab daan dóor fab daan j'attaque je cogne et je gagne moo war a am président Macky Sall leader yi ànd moom du ñu ay gone kenn xaju ci ci candidat yi nga xam ne ñoo fi ne kon nag bu ñu lu ba téeméer ànd ak moom war nañoo am fit am ngor dem ci nit ñi li ñu yor ñu ñàkk lu mu leen jaral ñu jaral ñu ko xeex bi du yomb yéen waa Mbàkke tànn ngeen man nag président damay dimbali waa Mbacke rek dinaa indi li ma man ci sama xel dinaa indi li ma man ci sama poos bu ma doon jaay sama kër dinaa ko def pour ñu gañe ànd bi ngeen ànd yéen waa bu leen ci jox bu ñu ñàkkee élection ci Mbacke Mbacke du teemu gañe réew mi kon nanu ànd ànd xol ak dëgg yéenante jàmm fexe ba gagné élection yi foofu laa yem tàllal naa ñëpp loxo sant naa leader yëpp maa ngi Dakar maa ngi Thiès maa ngi fépp li ñor mooy Macky Sall gagné allahuma salli ala sayyidina Muhammadin di dëkkub maam Cheikh Ibrahima Fall te nga jóge fa legi di dëkkub maam Cheikh Anta di dëkkub maam Diarra maam Mor Diarra di dëkkub Cheikh Ibrahim Fati mi nga xamante ne bii moom la Serigne Touba déggoon yoon wi fii fi la Cheikh Mouhamadou Moustapha gadee adduna fii ci Daaru Salaam Cheikh Mouhamadou Fadal gadee fi adduna Serigne Mouhamadou Lamine gadee fi adduna ak mbooleem njabootu Serigne Touba gépp kon ñi ngi lay dalal jàmm ci fii ci Touba di la xamal ne ñaari kaddu rek laa lay wax kaddu gu mujj gi. moo di le 24 février daañu la fal incha allah rabbi kaddu gu njëkk gi nag moo di balaa booba daañu la sargal daañu la sargal ànd ko ak waa Sénégal gépp ndax liggéey bu rëy bi nga liggéey ci réew mi sargal la ànd ko ak baykat yi ndax PUDC sargal la ànd ko ak ndaw ñi ak jigéen ñi ndax DER bi sargal la. ndax autoroute Ila Touba sargal la ndax carte égalité des chances sargal la ndax 120 milliards bourse familiale sargal ndax yaay candidat bi gën yaa leen man fuuf te le di nga leen daaneel bu soobee yàlla te fii ci Touba fas la nga gañe ko lan rek lañ wax mooy li suñu wajur wax tey di sa wajur di sa sëriñ di sa xarit di Cheikh Mouhamadou Mountakha te li mu wax mu donde ko ca way juróom wa di Serigne Saliou ma nga xam ne léppam nga wóor foog naa Moustapha mii seere la si Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ku nekk gis na fi nga jaar ak moom Cheikh Sidi Mokhtar ku nekk gis fi nga jaar moom kon dénk na la Serigne Touba duggoon na la ci biir liggéeyu Serigne Touba bi te ku Serigne Touba fat ñu ko Ablaye Mbaye Pekh doo fanaan biti kon incha allah le 24 na ñëpp voté le président moom deuxième mandat ak liggéeyam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërë ngeen jëf. taxawal ci wàllu liggéeyu ndaw ñi parce que mooy li gën a am solo. ñu taxawal benn parc industriel ci Touba ak Mbacké ngir usines yi mën waxtaan nañu si ak homme d'affaires yi ak femme d'affaires yi Touba waa ma leen sant di leen gërëm wane nañu bu jàppale amee naka la ñu mën a andee ay usine jox ndaw ñi liggéey loolu signé nañ ko ba ak waa Sonacos signé ko ak bopp usine buy liggéey dawleen ci Sénégal liggéey boobu nag danaa ko yaatal Touba ak Mbacké tàmbali nañu def plus de cent bus ci Touba tali yii ma def te fas ko yokk dana tax ngeen am ay bus urbain maanaam dem bi ak dikk bi yomb waaye fas yéene naa ci njàngum utal leen ENO muy espace numérique ouvert fii ci Mbacké fas yéene naa domaine agricole communautaire boo ne ci Touba ak Mbacké lépp lu ñu fi a di ganaar wala produit moo xam légume ko def fii ci dëkk bi ndax gone suñu liggéey nag nee naa leen fan yii di ñëw danaa si jaar ku ñëw Touba da nga centre les opérateurs économiques ndax tey bu ñuy wax mbéyum gerte ginnaaw producteur yi muy béykat yi wax dëgg yàlla commerçant yi la ak OPS yi te Touba bokk na ci centre bi gën a am solo tey ci Sénégal ci wàllu gerte. gerte nag buñ koy wax mu ngi jógee ci six cent mille tonnes deux onze ñëw tey ci un mille tonnes loolu wane na yokkute bu mag ci wàllu gerte te ku ne xam ne njëg li téye nañ ko bu baax a baax jëlee ko ci cent cinquante francs yóbbu ko ci deux francs bi ñu fi nekkee ba kon ñun bu ñu ne daañu jàppale mbéy mi daañu jàppale càmm ji ko déjà waaye li ci kanam moo dàqati li ñuy dund tey moo les responsables politiques du département de Mbacké je vous remercie je vous félicite pour cette mobilisation exceptionnelle qui a donné le temps pour la campagne de 2019. On gagné il n'y a pas photo. On gagné, Mbakemon, Aktuba, combat du Viam, combat Mounou Viam, combat Natien, sans exception, Moustapha, Monsieur le maire, Moustapha Sisselo, à tous les responsables, Monsieur le maire de Touba, yéen ak responsable de yi soxna moom xari yéen ñëpp dama ne gàcce ngalaama kontaan naa te nii nag lañ koy jusqu'à la victoire au soir du 24 février 2019 maa ngi remercier les dirigeants de la grande coalition présidentielle la coalition Benoît Bokk Monsieur le Président Ousmane Tanordien, Monsieur le Président, Madame la Présidente du Conseil économique, les leaders de la coalition Wolingienne, que Sénégal mon ignore, depuis sept ans, nous avons tenu à conserver cette coalition pour l'intérêt du Sénégal. Comme intérêt pour vous, c'est une dans de Sénégal paske ñun amuñu programme buñu lambatu ñun suñu programme dañ ko tank lu leer la lu ñëpp d'accord la lu am finance mala kon loolu duñ ko mengale ak ay tatonage wala di jéem tu lambatu kon nag ca kaw ca kanam jërëngeen jëf for food, I